sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal alhamdulillahi allazi tafarrada bi jalaali malakutihi wa tawaxada bi jamaali jabarutihi wa taazzaza bi ulwi uhadiyatihi wa taqaddasa bi sumuwi samadaniyatihi wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin sayidil anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa saxbihi mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu nuyoo nuyoo bislaam ñu dellu si di fàttalante niñ ko daan defee ci yenn ci ponk yi nga xam ne mënees na koo fàttalante ci barab yu mel nii di fas yéene eh, fàttalanteeg mbokk yu ci àq ji nga xam ni wayjur am na ko ci war a yar ay doomam maanaam njabootam àq ji nga xam ne suñ boroom gàll na ko jur ci ak njabootam ñu jël ci benn pàcc rekk muy wàllu yar nan la leen war a yaree lu tax ñu digal ko mu war leen a yar di ciy fàttalante ci beneen tomb ci suñu réew mi ñu nekkit li ci ñuy am jafe-jafe ci yar boobu léeg-léeg kon suñ borom day wax ci suratu tahrim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun suñ borom day wax ci suratu tahrim di wax yéen ñi nga xam ne yéen a gëm na ngeen fekk seenu njaboot te fegal seen bopp sawara suñ boroom fi mu la digalee nga fegal sa bopp sawara fa la digalee na nga ko fegal sa njaboot te fegal ko sa njaboot dara jiituwu ci jaarale leen fi nga leen war a jaarale mooy fa suñ boroom sant daane nga jaar fa foofa la ab jullit dong mën a jaar ba fegal ak njabootam sawara kon lañ cay dégge mooy suñ boroom digle na ñu sàmm suñu njaboot yar leen ci diine ba liñ bëggal suñ bopp muy ak texee ñu war leen koo bëggal xam ne sii nag seenub yar ci yow la aju responsabilité bi ci way jur yi la aju suñ boroom it woy jur yi lay laaj responsabilité boobu ali ibn abi taalib euh, daan wax ni allimuhum wa addibuhum bu ngeen amee njaboot na ngeen leen jàngal te yar leen lañ cay dégge mooy kon ak njaboot des ko war a jàngal nit ki njaboot gi la yàlla sédde muy say doom wala ñuñ la jox àq ji nga am ci ñoom daf caa bokk nga jàngal leen bañ dañ ak réer gis nga Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu di wa anqiz ayaali min ad kon ñaan googu muy ñaan ak jàngale la mooy ak njaboot moom la nga njëkk a warloo ak ñoom mooy fexe ñu dañ ak réer jàng ba xam mooy tax bu ëllëgee duñ la mere bi ci topp mooy nga yar leen ku ne xam na ni ak njaboot des koo war a yar njaboot kenn mënu koo fàggu lenn ci àdduna lu dul ab yar leneen lu dul loola nekkul sa loxo xam-xam bi sax danga nga was lu àq ci am xel la aju ak ay capacité yoo xam ne sii ay spécificité furuq fardiya la ajuwut ci yow danga nga was lu àq kese yar bi mooy li nga xam ne sii moom lañ la gàll mu nekk loo xam ne sii force la loo war a def ci ñoom te yar boobu nag day nekk ci yow it nga xam ko tax nga mën koo def ci ñoom leneen lu dul loolu mënoo koo garantir sa njaboot du am am du ab xam-xam yooye yeneen la yoo xam ne sii ci nekkul ci sa loxo kon li nekk ci sa loxo mooy yar bi nga leen war a yar képp moo nekk ci sa loxo li nga xam ne sii mën nga koo wane ci ñoom ba bu ñu màggee ñu xam ne lii yaa ko def ci ñoom imaam xasan radiallahu anhu ba ali ibn abi taalib day wax ni muruuhum bi taatillahi wa allimuuhumul xayra bu ngeen amee njaboot na ngeen leen digal topp yàlla te di leen xamal lu baax ak njaboot loolu nga séq ak ñoom buñ tolloo ci xam nga xamal leen li baax ak li bon waaye ni nga ko waxee woon sànq ab xam-xam munoo koo def ci ñoom ndax nekku ci yow ci seenum xel la aju ak ci facteur alal munoo koo def ci ñoom ndax nekkul ci yow ci suñ boroom la nekk kon xamal leen lu baax ak yar leen képp mooy li nekk sa loxo nga war koo mën a def kon jullit bu nekk war naa bàyyi xel ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci ab xadiis ne kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raayatihi kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk na xam ni yowmal qiyaam dinañ ko laaj lam sàmmoon te dara jiituwul ci sàmm sag njaboot gi nga xam ne sii yaa leen yoroon kon njaboot gi da nga leen sàmm ci ak yar sàmm leen ci jaamu yàlla sàmm leen ci digal lu baax ndax yowmal qiyaam bu ñu la laajee la nga leen defaloon nga leen nga ne defoon naa ci ñoom lii leneen lu dul loolu mënoo ko def ci ñoom te kenn du la ko laaj kon buñ tolloo ci diggante booba waaye waaye nañ ci lu àq luñ mën ci xamal leen lu baax ak ci yar leen Ibnul Qayyim day wax ni. inna allaha subhanahu wa taala yasalu alwalida an waladihi yowma alqiyamati qabla an yasala alwalada an xaqi alwalid mu ne yowmal qiyaam suñ borom bala moo laaj doom ji lan nga defaloon sa baay fan nga féete woon sa baay dana laaj way jur yi ba noppi lan nga defaloon sa doom loolu lay njëkk laaj doog laaj doom ji loo defal sa way jur lañ cay déggee kon mooy àq yi way jur ji war a defal doomam moo jiitu te bari na ñoo xam ni lañ war a def ci seen njaboot difuñu ko ca ba noppi di xaar ci ñoom beneen résultat tey gis nañ seen njaboot mel neneen lañu ñu wartoon a mel ñu jiiñ ko jamono wala ñu jiiñ ko dëkkuwaay wala ñu jiiñ ko àndandoo walla ñu jiiñ ko lu bari te fekk na lañu waroon a def ci ñoom ca jamono dañ ko waree def defuñu ko kon àq jooju moo jiitu wala tey si seen njaboot taxawuñ leen wala ñu ngi yàqte ci àll bi wala ñu ngi leen di dégg ci lu ñaaw te fekk la ko waral mooy bañ tollee ci yar leen yaruñu leen bañ tollee ci war ne xamal lan mooy lu baax ak lu bon xamaluñ leen ko bàyyi leen ak àdduna bàyyi leen ak alal ba àdduna wëlbati leen wala ñu am ay àndandoo yoo xam ne si soppi nañ leen. lañ cee déggee kon mooy àq ji jur ji am ci yar doomam moo jiitu àq ji doom ji war a am ci fay juróom lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ci benn xadis ne sabaatun yuzilluhum llahu fi zillihi yowmal qiyaam am na juróom ñoo xam ne si yowmal qiyaam bu ker ma jafee suñ borom moo leen di keral ca keram ga tudd na ca shaabun nashaa fi ibadatillahi waxambaane woo xam ne si yar nañ ko walla sosu na ci jaamu yàlla mooy lan ba mu tolloo ca nekk waxambaane xamal nañ ko diineem yar nañ ko ci ak jaamu yàlla bokk na ci ñiy texe yomal xiyam te loola kon waajur moo ko mën a defal doomam ndax doomu aadama bu juddoo xamul mënut environnement bi mu yaroo muy ci waajuram wala ña koy wer lu ca ëpp na mu mel ñoo koy def ca moom kon responsabilité boobu kenn ku nekk war na koo xam ci ak njabootam te di ko sàmm te di ca lu àq kem lam man donte jafe na waaye lu la jamono fëkk fëkk fëkk na nga xam ni loolu sa responsabilité la ci àdduna suñ borom dana la ko laaj yomal xiyaam kon boo taafantaloo ne yóbbu naa leen ñu jàngi kon yaa ngi leen di jàngloo waa yaroo leen ndax fa nga leen dénkaane ñoom duñ leen yar programme ba ñu yor ab yar bukk ca kon bu boobaa ba tey na nga xam ne àq ja wàccagu la ba léegi ndax jàng ak yar lañu war a boole mooy dañ ak réer ba noppi yaru ndax yaru bu amut xam lu baax du am ni ko imaam Xasan waxee woon sànq da nga leen xamal lu baax yar bu amut duñu xam lu dagan yar bu xam bu amut duñu xam lu araam moo la sëñ bi tënk noonu anqis ayaali min ad-dalaali wa bil xalaali xali saraay di leen jàngal ni dañoo war a lekk lu dagan te nit ki bu yaruwut wala xamut du xam lan mooy lu dagan ak lu daganut kon xam képp doyut nan la ñuy jàngalee nag suñu njaboot ñu xam lu dagan ak lu daganut lu araam ak lu araamul xam lu baax ak lu bon kon jàng ma ñuy dem ci école ba di ko jàng ki si doyut kon bu ñu basé wu ci loolu ba jàpp ne àq jooju matale nañ ko nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ku ne xam na ne fii ñi ngay jàng looloo xamoo leen da nga jël sa doom yóbbu ci école ba inscrit joxe photo joxe extrait de naissance dem toog weer wu nekk nga dem fay di xool ay bulletins ndax mi ngi am ay moyen wala amul ay moyen loolu kese nga séq ak njàng mi ki koy jàngal xamoo ko. xamoo ay gëm-gëmam xamoo pas-pasam ñamey jaxasool xamoo seen gëm-gëm xamoo seen pas-pas xamoo environnement bañ nekk kon ku nekk war naa xoolaat boppam ndax mi ngi jël responsabilité am ci doomam wala jëlu ci responsabilité am néewaana ku yóbbu doomam ci école fii di topp ka koy jàngal xam ko wala mu xam pas-pasam wala mu xam wéeruwaayam wala mu xam ay am ngëm ay ngëm-ngëmam wala mu xam ay désiram wala mu xam ay loisiram te la nekk ca moom kese lay def ci njaboot gi te yàgg ko dénk teg ci di ko fay ngir bu def loolu kon loolu responsabilité bu rëy la boo xam ne sii nañ ko bàyyi xelu baax a baax a baax a baax lañ cey déggee mooy jàng képp doyut dañoo war a yar njaboot gi ci lu baax te yarlu responsabilité bu rëy la te jànglu mooy yarlu kon loolu nañ ko xam di seet fi ñuy yóbbu suñu njaboot di ko saytu di saytu ña leen yor loolu am solo dafa bari ñoo xam ni dañuy investir ci seen doom ci wàllu am-am ginnaawal jikko am-am mooy lan su ma ko dugalee école sàngam walla bu defee branche sàngam. bu ca génnee dana am liggéey nangam bu ca amee liggéey sàngam dana mën a am salaire nàngam am na ñoom loolu dong lañ séq ak seen doom mooy doom suur si source d'investissement lañ ko jàppee boo xam ne ngir mu indil la alal ëllëg wala mu indil boppam alal ëllëg yar ba sa yoon nekku ca diine ji sa yoon nekku ci te responsabilité gënta rey loolu lu waay ñàkk a seetlu ñàkk seetlu dana xam ni wërsëg. kenn du ko def ci njaboot suñ borom moo koy moo ko yor xam-xam am xel la suñ borom moo ko yor comme niñ ko waxee woon sànq ab yar képp nga mën a def ci ñoom duñ torox leneen loo investir ci ñoom bis bu ne ñu gis ci jamono ñoo xam ne sii environnement bañ yaroo wala seen wayjur am nañ alal wala am nañ lu nekk def nañ ci ñoom alal ñu leen di toroxal bis bu ne. bis bu ne nga gis koo xam si am na xam-xam am na ay diplôme yu ne ñu koy toroxal saa su ne di ko tudd ci ay scandale yu nekk lañ cay déggee kon mooy war naa leer ci bët nit ñi ne xam-xam bi kese doyut teg ko ci yoon woo xam dana am alal dong it doyut kon yar ci yar ci diine moom du source d'investissement da gis sax ñoo xam ne dañ leen di yóbbu ci yenn école yoo xam ne si bokkook ñoom pas-pas bokkook ñoom gëm-gëm ndax jàpp ne seenum njàng moo gën a baax nga xam ne àdduna képp nga cay xool moo tax gis nañ fi école yoo xam ne dañ naan kenn du fi muuru kenn du fi julli te am nañ ca àq am ca sañ-sañ ndaxte yow yaa soisir loolu te nit nag li nga bëgg daa am loo koy jëndee sa doom boo ko boo ci dugalee investissement ngir ëllëg na am poste sàngam wala na am salaire nàngam na nga xam ni loola da nga am loo ko jëndee lañ ko jëndee nag na ko nangu kon nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu responsabilité gën te jël sa njaboot yaroo leen ci diine jàngaloo leen diine ndax xool am am bu ñuy am ëllëg te li histoire wane mooy loolu mayul kenn dara loolu mayul kenn dara bariwaana kilifa yoo fi tudd wala njiit yoo fi tudd seeni way jur yorutoon alal ju bari te tey ñoo jiite ñépp bari nañ kilifa yoo fiy tudd walla njiit yoo fiy tudd seen way jur amul woon benn xam-xam bi te tey ñoo jiite ñépp donc leen rek lañ nga leen mën a seedeel mooy ab yar bu nekkoon ci ñoom kon yar mooy may nit lu ne mooy may doom lu ne waaye du source d'investissement loolu nañ ci bàyyi xel jamono nag metti na calcul yi bari na waaye lu waaye gàtt xam-xam gàtt xam-xam xam ne suñ borom moo yor wërsëgu doomu aadama mbooleem ku fi yor tey ba ngay tàmbali ñu lay jàngaloo teguñu la woon ci yoon woo xam ne si yoonu am la te teewul la nga war a am da ko am kon doom yi nañ leen bàyyeeg suñ borom te yar leen ci diine te jàngal leen xam-xam te xamal leen lu baax xamal leen lu araam ak lu dagan loolu mooy tax ñu wàccoog ñoom ba ëllëg duñ ñu mere leen lu waaye def lu dul loola ëllëg danga nga amee sa njaboot àq joo xam ni danga ko layoo ak ñoom kon doom lañ cey déggee mooy loo ko mën a jàngaloo it na nga koy suivre na koy topp na xam ñi muy fréquenté na nga xam téere yi muy liir na nga xam environnement ba mu nekk la fa am loolu mooy sa rôle ci doom ji lu jamono xat-xat-xat war ngaa sàmmoon teg loolu kon loolu lu mat a bàyyi xel la bu dee fii ci réew mi bàyyi nañ njaboot gi ba mu ëpp bàyyee leen àdduna ba mu ëpp seetaan nañ leen ak réseaux yi bàyyi leen ak média bi ñu agressé ñu dugg ci suñu biir yar dugg ci suñu njaboot ñun ñuy taafantaloo amuñu jot di taafantaloo jamono moo ko laaj ba ñu dugg ci suñu biir yaru njaboot ba def ca lu ñu bëggul loolu lu doy la bu dee réseaux sociaux yi ñuy ne ñuy jëfandikoo xale yi di ko jëfandikoo nga xam ne lañ cay nekk moo ëpp li ñuy nekk ak yow lañ cay gis di ko fa dégg moo ëpp li ñuy gis ci école ba ak lañ di ko fa dégg loola ndax parent bi am na ci responsabilité wala am ci responsabilité ah kay am na responsabilité bu xale bi tolloo ci yar am nga ci responsabilité ku ne xam na cosaanu réseaux sociaux yi li ko fi indi bokk na ci ay ab groupe étudiant yu toogoon gis ni kat informatique dafay connecté ay données ca Amérique fexe nañ ba données information yi ñu koy ñu koy connecté li nekk ci machine bi nekk ci machine bële données yi nekk fii nekk fële ñu connecté leen ñu bekk benn ñu dem ba gis ni comme que données yi ñu ngi connecté entre eux kon war nañoo mën a connecté nit ñi ñoom tamit seen bopp ñu ko ñu am connexion boobu xalaat boobu Mark Zuckerberg ak xaritam ya ñu xalaat ni kon nañ keree loo xam ne si dana connecté ñun nit ñi ni données yi connecté woo ñu xalaat réseaux sociaux yi ñu gis ni ay Facebook ak yu mel noonu ngir connecté nit ñi ay nit ñoo xam ne si bokkuñu ay jëmukaay bokkuñu ay bëgg-bëgg loolu la indi léegi. ñoom dañ koo defoon ndax ñoom ci seen biir ñuy gisee di waxtaan waaye defuñu ko woon ngir ne kenn ku nekk war ngaa mën a lëkkaloo ak moom ku la neex ak ku la neexul koo bëgg ak koo bëggut loolu taxutoon te léegi foofu la toll la cay suñu responsabilité mooy war nañoo xool lii ñu bàyyee suñu njaboot mu jël ci ñoom waxtu woo xam ne sii moo ëpp wi ñu wi ñu leen yor fan la leen jëmale lu ciy njariñ ak lu ci dul njariñ te jamono dox na ba léegi néewaana jur woo xam ne sii sax ñeme naa dem jël téléphone doomam di xool yan xarit la am lan lay xool ci yan groupe la bokk lan lay seetaan néew na ñoo xam ne sii ñu ngi def loolu te loolu dangereux la bàyyee gi ñu leen bàyyee seen bopp mooy fuite gi ñu def fuite de responsabilité bàyyi leen ak jamono bàyyi leen ak temps bi bàyyi leen ak environnement loolu fuite de responsabilité la mu am leneen lu leen di yar am leneen lu leen orienté am leneen lu leen di jox ay gëm-gëm am leneen lu leen di jox ay xarit yu bokkul ak yow yoo xam ak yow bëggoon. kon bu jamono dox ba ñu fàtte suñu responsabilité suñu diggante suñu njaboot googu loolu kenn ku nekk war na cee bàyyi xel ñun duñu occidentaux yi suñu liberté wërte egg ci ne war nañoo bàyyi suñuy doom ñu am liberté ku amul fukki at sax wala fukki at ak juróom am na sañ-sañu yor téléphone wala yor tablette am ay xarit junni xarit yoo xamut am téeméeri groupe yu mbokk yoo xamut loola fuite de responsabilité la xëy na lu jafee la dindi waaye nag bu mu tax kenn yokkat ci wala jàpp ne du sa responsabilité nga xam loolo ndax dinañ désorienté wu dinañ bokk ci lobby yoo xamut dinañ yore jikko yoo xamut te ñu sa biir kër te loolu sa responsabilité la nañ ci bàyyi xel. toog ak sa njaboot kenn ku nekk ñu nekk ci téléphone di wax ak moom monde extérieur nañ ci bàyyi xel lu doy waar la te day dugg ci àq ji ñu doon waxtaane muy àqi waajur wi ci yar doom yi ndax su boobaa mooy yaratoo leen li ñuy roy saa su ne war nañoo xam lan la li ñu ñu indil te moomuñu ko li ñu ko ñu indil te bokkul ci ñun war nañoo xam lañ ca war a jël lañ ca war a bàyyi boo demee ci occidentaux yi ñoom defuñu duñ ko jëfandikoo comme ñun ñii niñ koy jëfandikoo yi boo demee ci yenn réew yi ñu bari dañoo jàpp ne ñun ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi wala internet àdduna bépp na lañ koy jëfandikoo déedéet ñun xëy na ñoo nekk xeet woo xam ci luñ tugg ëppal ca wala duñ ñu cay formé wala duñ ñu ci yar tey nasaraan yi nga xam ni ñoo créé lii walla ñoo ko moom ñoom encadré nañ ko ci seen bopp encadré ko ci seenu njaboot damay laaj benn étudiante euh, sénégalaise bu nekk euh, New Jersey ci États-Unis toll ci jàng nekk collège ma ne ko waaw yéen. réseaux sociaux yi ñun ni ñu koy jëfandikoo ndax yéen ca foofa noonu leen koy jëfandikoo ñun ni ñu koy bàyyee suñu xale yi ndax noonu leen koy bàyyee seen noonu leen koy bàyyee yéen mu ne déedéet boo demee ci New Jersey collège bu ñuy wax Hudson Community College nee na école bi dañ fay def ab wifi bu fa nekk ngir ñëpp di ci jëfandikoo waaye wifi bi dañ koy paramétrer ba nga xam ne si mënoo cee dugg fu dul Google kese nga ci mën a dugg école boo dem bu fekkee ne ña fa nekk majeur guñu duñ leen may benn yoon ñu am sañ-sañ lu leen neex ñu xool ci réseaux sociaux yi wala fu leen neex ñu dugg te ku xam-xam ni moteur yooyu moteur recherche xam-xam la kese ku ne mën na koo jëfandikoo waaye duñ leen may sax ñu am accès dugg ci ay Facebook comme ñu ni def ñu dugg ci WhatsApp kon ñoom lañ yor encadré nañ ko xam nañ ko fii ngay gis nag ku jël wii fi teg ci këram jox ay doomam di fay naan leen dee leen jàng ak dee leen ci jàng te duñ ca mas a jàng école bi am ko ñëpp am ko kon nañu xoolaat suñu bopp xool nañu ko jox sagam ñoom ñoo ko paramétré noonu ndax xam ne am na ci loo xam ne si xale bi soxlawu ko bu mu ko jëfandikoo ci jàng la toll nañ ko ci ubbil fenêtre boo xam ne si ngir xam-xam kese la boo weesoo loolu nag ñu doog koo may loo xam ne si lu mu bëgg def def ko ca te loolu mooy loolu mooy responsabilité. loolu mooy responsabilité kon nañu waslu àq ci suñu njaboot bi nañu lu àq ci yar bi parent warta démissionné ci ak njabootam loolu rek lañ bëgg a wax jamono waru laa jàpp ba nga jàpp yaa ngi ci lu ëpp njariñ yar sa njaboot ci diine wala yar leen ci lu baax loola dañ ci soñ suñu bopp di ci soñ ñépp ndax jamono ñu bare ngi taafanteloo mettitu jamono waaye loolu bokk na ci li indi mettitu jamono bokk na ci niñ ko waxee yar bi ku ne xam na ni niñ ko waxee jigéen ñi ci yar bi lañ bokk yi ci Sénégal sooxeel na lu baree baree baree bare ci yar bi ndax ku nekk xam gis na suñu loi yi niñ ko bindee niñ ko tëralee da ngeen di divorcer dem tribunal ñu jël xale ya ni seen yaay moo leen di yor yow dee leen dundal mu nekk jafe-jafe bu rëy ci yar nekk jafe-jafe bu mag a mag ci société bi xale duñu am yar duñu am famille duñu xam luy parent duñu xam luy union duñu xam li yore kër duñu am ay repère kon loolu lu mat a bàyyi xel la te mi ngi law ci société bi di bari di yaatu di am pourcentage bu doy waar ay xale yoo xam ne si seeni waajur dañoo tàqali ko nekkuñu ak seen papa nekkuñu ak seen yaay nekk ay victime kon ñu continuer ci fàttalante yenn gàllankoor yi nga xam ni ñu ngi gàllankoor société bi ci njaboot gi mën a yaru wala ñu tegu ci yoon ñu ngi woon ci passé yi am ci réew mi te saa bu amee njaboot gi tàqalikoo du ñu am repère maanaam du ñu am wéeruwaay du ñu am royuwaay doom bu fekkee ne nekkul ay waajuram fan lay xamee ñaari way dencante nan lañu war a nekkee fu mu koy xamee doom bu nekkee nekkul ak ay waajuram fan lay xamee responsabilité fan lay xamee li war góor ci këram fan lay xamee àqi boroom kër ci këram fan la koy jàngee kon loola lañ cay dégge mooy lu mat a bàyyi xel la te pourcentage boobu mi ngi bari ci njaboot gi léegi danañ dem ba bari lool ci kanam boo xoolee pourcentage u divorce yi am ak séddoo njaboot gi kon bu ay jafe-jafe amee ci sëy ngir àq njaboot googa ñu mën koo sàmm nañ xool loola ngal la ba lu ñu mën a daw ca pase ga ñu daw ko ndax bokk na ci liy indi loolu donte léeg-léeg du mën a ñàkk waaye bokk na ci liy indi société boo xam ne si duñu am ay repère te loolu lu mat a xel la doom day yaroo ci keppaaru ay waajuram ñu nekk ay royuwaayam waaye ku ne xam na ne xale bu ndaw ñu ne bàyyi nañ kook yaayam pare weekend ne seeti papaam papaam am na droit ñëw seet si ko benn yoon ci semaine bi wala benn yoon ci weer wi du mas a xam lan mooy ay war téefam ci kër su màggee bariwaane société yu yàqu loolu moo ko yàq tey société occidentaux boo gisee mu mel nii mu mel mooy dañoo réussir ci lépp walla ci lu bari ba mu des ab yar ak yar njaboot dañoo réussir ci lu baree bari ci industrie réussir lu baree bari ci alal échoué ci former nit ak yar ak njaboot moo tax la fay xew di fa xew yépp ñuy gis phénomène yi am yépp ci ñoom di gis genre yi am ci ñoom yëpp loolu moo ko indi njaboot gu ñàkk repère njaboot gu màgg fekkuñu seeni wayjur nekk ñoom ñaar du ñu am repère ñu xam jikkoy kan lañu war a jël kon loolu ñun nañ ko moytu rawatina société boo xam ne sii dañuy woote ne ay jullit lañu li ñu islam diggal mooy nañuy jël suñu responsabilité suñu doom su ma dem wax ci sootul anam waa takk taqtulu awlaadakum min imlaaqin nahnu narzuqukum wa iyyaahum bu leen rey seeni njaboot ndax ragal ak ñàkk ci beneen contexte li mu bëgg a wax foofu mooy ñun ñoo yor seeni wërsëg mooy nit ki bu mu investir ci doomam yaakaar ci wërsëg kese wala su ma ko tegul ci yoon wi ëllëg du am dara wala su ma ko tegul ci yoon wi ëllëg du ma jariñ kenn lu yaree noonu doom doom da koy yar ci diine ci digal lu baax te nga xam ni wërsëgam suñ borom moo ko yor amul kenn koo xam ne si toog nga fii ci barab bi tey li nga nekk wala li nga am ci yoon woowu lañ tegoon amul kenn koo xam ne si tey sa waajur yaakaaroon na ne di nga am lii nga am tey kum mën a doon kon loola nit lu mu gàtt gàtt xel war na caa xamee ne suñ borom moo yor wërsëgu doomu aadama kon li ñu warloog doom yi mooy yar leen képp ci diine yar leen ci lu baax. ndaxte bu ñu leen bàyyee seen bopp comme ni mu ko waxee léegi dañuy accroché wu ci ay réseaux sociaux lañ fay gis ci ay digle lañ fay gis ci ay tere dañuy jàpp ne loolu mooy lu baax groupe yañ fa nekk nañuy yaree ak proverbe yañ fay dégg dañuy jàpp ne loola mooy lu baax te loola doyul ci ab yar ku ne xam na ne benn inconvénient bi muy indi mooy jafe-jafe. bu leen bàyyi réseaux sociaux yi lan lay indi dañuy dem ba duñu xam ak mbokk duñu xam ak way ay wayjur duñu xam àqi mbokk duñu xam àqi wayjur naam gis nañ group whatsapp groupe facebook ay nit di ca booloo di ca jàng di ca fiir ay téere groupe famille di wàccee ay kaamil ci ci ci groupe bi di ci waxante lu baax am ñu ciy jàng loolu aspect bu positif la bu ñu war a soññi xale yi di leen ci tàggat ci réseaux sociaux yi xamal leen kon mu nañ ko exploiter ci côté boobu loola moo ca la ca baax ñu gis ci geneen wet gi mu yóbbe ñenn ñi gàttañlu waslu àq gàttalu ci mbokk da ngay am sa doomi baay boo xam ne yéen a bokk benn baay mu dëkk fii waaye donc comme que yaa ngi gis ay information muy publier ci Facebook bi wala ci WhatsApp bi rek loola doy na la dootoo ko seeti doo xam ak njabootam doo xam wér na doo xam jafe-jafe yu mu nekkee doo xam ni njabootam nekkee saa boo xëyee gis mu statut rek nga jàppale mi ci jàmm te kon loolu doyut kon bu ñu leen bàyyee loolu lan ñuy yóbbee mooy day disloqué suñu njaboot gi tàqale famille yi mbokk gi tàqale kóllëre yi ñëpp dund ci monde bu virtuel boo xam ne feeg yaa ngi gis nit ci page am ci Facebook wala muy statut ci WhatsApp rek nga ne mi ci jàmm ak loolu mën a bokk te loolu ku ne xam ne doyut te àq jullit ak moroom ma dañoo war di seetante di nemmukante jafe-jafe yi mu am nga xam ko la la ca mën nga def ko njaboot yi xamante doomu bàyyi xamante di seetante di demlante di séq teraanga di séq lu baax loolu la mooy yarub lislaam loolu mooy yarub jullit waaye kon ni xam ni réseaux sociaux yi doyut ci ñu bàyyee ko njaboot gi mu leen di orienté ci loolu la leen di yóbbu bu fekkee ni bàyyee nañ leen ko xamuñu seeni orientation benn xamuñu seeni mbokk ñaar xamuñu lañu war a def ñett su boobaa ñun am nañ ci responsabilité bu rëy rëy kon bu jamono dox ba kenn jàppale jamono dalaa njett ba tax mënatul tuur sa njaboot dara wala dara waratul ci ñoom ñu nekk ci réew moo xam ne it média bi li muy orienté néew na programme yi ñu ciy gis li muy yar néew na programme yi ci am njariñ mën a jubbante ak njaboot néew na ay méga commerciaux lañ yor yoo xam ne li leen intéressé mooy ay faits divers di wax loo xam ne si buñ ko waxee nit ñi yéemu ba nit ñi jàpp ne loolu kese mooy àdduna wala loo fi nekk ay téléfilm yoo xam ne si contenu bi intéressé wu leen scénario bi intéressé wu leen. sponsor yi cay am képp lañ ci intéressé ak lañ cay gaje kon nañuy orienté njaboot gi di leen xamal bu ñu ma amul seen jotit jamono ju ñu am lu ma xat xat xat ñu xamal leen loolu loolu mooy àq ji jur am ci doomam ci yar waaye li indi loolu lépp mooy li ñu waxoon sànq bu fekkee ne sa doom da nga ko def source d'investissement naa ko dugal ci école bii ndax bu fa génnee dina nekk nangam kese moo la ci ñor lu ko waa école boobu digal loolu lay def fuñ ko orienté fa lay jëm luñ ko xoolloo fa lay xool seen télévision buñ ko forcé boobu lay xam su ko bokkatoo ci sa responsabilité génn na ca te doom du ngir loolu dañ koy répété saa su ne yar képp nga may def ci moom mu am résultat kenn mënut ne sama doom li ma am dina ko am ci alal. may ñu ko kenn loolu suñu borom may ko kenn kenn mënut ne li ma am ci xam-xam sama doom dina sama njaboot dinañ am ci xam-xam kenn mënut loolu li ma man mooy yar naa ko ci diine xamal naa ko lu baax xamal naa ko lu dagan xamal naa ko lu araam xamal naa ko lu lew ba mu xam ko loolu dong lañ mën a assuré ci njaboot kon nañuy bàyyi xel loolu waxtaan wi lépp mooy yàq ji nga xam ne waajur yi am nañ ko ci njaboot gi lu jamono xat xat xat xat nañ ci boole njaboot gi xam ne luñ gàll suñu kaw la seenub yar ci ñun la aju lañ ca man ñu def ko wala buñ leen di yarlu ñu teg leen ci loxo yoo xam ne si xam nañ loxo yañ nekk ñu teg leen ci loxo yoo xam ne xam nañ loxo yañ nekk waaye jël jur rek am naa alal ma nga ca école sàngam wala mën naa fay ma nga ca daara sàngam doyut na nga xam borom daara ja na nga xam la muy jàngale na nga xam ay jikkoom nga doog ko ko jox ndax loolu mooy sa responsabilité kon waajur wu ne na sàmm loolu yonent bi sallallahu alayhi wax na ko kenn ku nekk yomal xiyaam dañ la laaj la nga sàmmoon te kenn ku nekk àq ji nga am ci sa doom moo jiitu àq ji sa doom am ci yow muy góor muy jigéen xataayu jamono du lay jafe-jafe jamono du lay ut loo am du lay ci ñàkk yar sa njaboot ci diine te jamono ngi jëm foo xam ne ku yaru sa njaboot ci diine mën nga caa bañ a neex ak lu mu mën a am ak lu mu mën a am nag ci xam-xam ak ci am-am loola ku ne gis ne exemple yi ku nekk dund na ko ci jamono ji kon loolu lu mat a bàyyi xel la gis ngeen ci Ahmad Bamba an anhu buñ ko masaana jox tut tànk la muy yittewoo ci moom mooy yar ba ak xam-xam ba li muy njëkkalaat ndax wattu na alxuraan bu ñu nee waaw mu boole ko ku ko yar bu ñu nee déedéet mu boole ko ku ko jàngal sëñ Modou Lamine Diop Dagana misaal la ci biñ koy jox sëñ bi kon loolu lañ cay déggee mooy kon ab yar moo ëpp solo lañ cay déggee mooy waajur wi yar kese mooy àq diggam ak xale bi ñu ko jox ak ku mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wa gis nañu ne ñun daan yore ci ay xale lépp boo leen ñaanal ak njub la leen di ñaanal ak xam-xam xale yi ñu ko mosaan a jox ñépp ay boromi xam-xam lañ ndax jàng loola leen di def loo ak yar leen ndax loolu kese les man ci njaboot yooyu kon yu mat a bàyyi xel la ci jamono ji ñu nekk. toujours ci yar njaboot gi bokk na leen tamit yar leen ci économie yar leen ci yaxanal yar leen ci nan lañ war a fàggoo alal ak bu ñu ko amee it fu ñu ko war a def loola it ku nekk am nga responsabilité boobu ak àq googu ci sa njaboot léegi sax koo xam ne si saa bu xëyee doomam ne ko jox ma nàngam ma jënd paas internet saa su ne mu cay yàq loo xam ne si xamoo sax ca lam koy doyee xamoo lam cay def xamoo lam cay xool waxuma yàqu gim ci yàqu waaye yàq alal gi nga koy jàngal rek responsabilité la war nga ko jàngal ne alal ci lu am njariñ kese lañ ko war a def alal du pour loisir alal du pour loo li ma bëgg a def rek naa ko ci def déedéet na nga ko jàngal muy def ci farata ba nopp nit ku nekk nag am na ay loisir nit ku nekk am na ay bëgg-bëgg waaye na ko jàngal def ci farata loolu kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bari na ñoo xam ne si li ñuy ñàkk ci seen njaboot ci yu mel noonu kenn xamul nu mu ngir bëgg lu leen neex te loolu responsabilité waajur wi la doom alal juñ la dénk la. ni ko wolof di waxee nawle la joo xam ne loo def ci moom bu màggee dana ko xam bu dee lu baax bu dee lu bon nit du meree way jure mukk lu tax teguma ci yoon wu ma amee alal nit du meree way jure mukk lu wax def may borom xam-xam bu mag lenn képp la ko mën a leere lu tax jàngalu ma woon ba ma tollee ci jàng mooy jàng rek lu tax yaruñu ma woon ci nàngam ji loolu les di mere wayjur te kon wayjur wu nekk war naa xalaat loolu war naa xalaat ni doomam yii buñ màggee lan laa def ci ñoom ci xam-xam lan laa def ci ñoom ci ab yar ku nekk mën na koo laaj sa bopp fii nga toog sama njaboot ñaata laa toog ak ñoom ci semaine bi wax leen ci lu baax orienté leen xamal leen ci diine ku nekk mën naa natt loolu kon loolu mooy ne kon fàttalante yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal